Euh, ca Italie ngànk nag kuréel gi nga xamante ne bii moom la ñuy wooye Anolfo lee fàttali ne euh, li nga xam ne moo tax a jóg seen projet bi moo ni dëgg la gaa tette ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem Italie nampatal leen saleen ci làkku italien waaye itam nag tette leen ba nga xam ne bu ne cëpp daanu am seen li nga xam ne moo di droit yoo xam ne yelloon nañu ko ba sax mën a intégrer la nga xam ni moo di société italienne kon ñu déglu ki nga xamante ne bii euh, moo di Cheikh Mbakelo maa ngi nuyu di leen ziar eh, ci organisation eh, bi nga xam ne ma organisation syndicale eh, Thiès la bu province bu Sondrio nek fële ci Italie en tant que président association association bu ñuy wax ANOLF mom tam nek fële ci province bu Sondrio ak ñi nga xam ñom la andal ñu ay enseignants ñu ay enseignantes ñoo xam ne eh, dañ fi ñëw ci benn projet boo xam ne depuis deux ans ñu di ci dox ci wàllu formation langue italien ànd ak tam mm, deux euh, agence yoo agent yoo xam ne donc ñoom ñu ngi dox ci wàllu formation ñoom tam professionnel donc euh, maa ngi remercier euh, association MPEC bu Bambilor bi nga xam ne tey moo ñu moo ñu invité fii vraiment def action bu bu rafet euh, ba pare togal ñu añ bu neex donc il faut <laughs> loolu ñu wax ko euh, ba pare jàpp nag ci projet bi donc projet bi nga xam ne moom moo ñu indi fii eh, mi ngi commencé ci mois de janvier donc mois de janvier ci lañ ñëw Sénégal donc euh, ak benn délégation boo xam ne bi ñu fi ñëwee rencontré nañ donc ay organisations syndicales yoo xam ne ñu ngi ci territoire bi ak ay associations yoo xam ne rencontré nañ pour présenter leen projet bi pour xool leurs idées pour ñu jox et indication ay information qui de permettre donc le euh, projet bi euh, donc biñ fi joggé janvier ci lañ déllu donc ci lépp donc projet bi mën nañ koy concrétiser donc commencé lundi le 8 juillet 2024 donc projet bi limu moy euh def suñu loxo ci li nga immigration euh, régulière donc combattre immigration clandestine parce que euh, duñ ko combattre parce que euh, dañuy bañ ku ki mais dañ koy combattre parce que euh, gis nañ ne jëye ji muy indi bari na trop ci suñuy rakk ci suñuy cousin wala suñuy sœur donc ñu invité nag li nga xam ne moom mooy ne nit ñi bu leen dem wala ñu leen ne donc yoon bi dafa dangereux wala ñu leen di kii dee nañ ci. mais li nga xam ne moom la projet bi tënk mooy euh, commencer def des informations yoo xam ne donc day nekk ci biir projet de formation boo xam ne ki nga xam ne dafa am projet tukki donc mu ñu jox ko possibilité opportunité mu jaar ko ci yoon boo xam ne yoon bu régulier lay doon nga xam ne moom ci boppam day tranquille ak ñi muy bàyyi mu nekk famille ñoom tam dañuy tranquille donc ñu koy commencer ci langue italien parce que donc ñun euh, italien lañ nekk donc foofu lañ mëna commencer donc euh, def ay cours yo xamné dina permettre nit ki nga xamné dafa bëgg tukki soit moy ki nga xamné amna autorisation au niveau comme regroupement familial wala mu am autorisation bo xamné ne dina ko permettre mu dem Italie pour ci walu liggéey ak ki nga xamné tam donc mom amagul ben autorisation mais mon projet mom moy mu tukki dem euh donc koku dañ koy jox possibilité jangal ko langue bi. Euh, euh, pour mu dem ba maximum ci dimension a moom la ñuy tuddee A2 donc euh, niveau boobu moom la Union européenne bi wax ne képp koo xam ne am nga ko donc yow sa intégration mën na mën na possible donc di nga mën a wax ak nit ñi di nga mën a xam donc sa intégration daal mën na commencer foofu. donc yàlla def na ñëw nañ fi ak ay enseignantes yoo xam ne commencé nañ cours yi donc cours yàlla def na commencé na le juillet donc mi ngi jeex le 23 euh, euh, côté bi nag ñu ngi def seulement cours la boo xam ne dañ ko préparer pour cours accéléré pour accélérer pour expérimenté tam xool ba xam fan lañ war a améliorer wala lan lañ ci war a dolli wala lan lañ ci war a wàññi parce que euh, moment bi daf ñuy permettre ñu mën a jàng lépp li nga xam ne moom moo war a nekk futur bi nga xam ne moom la école bi nga xam ne moom lañ bëgg yàlla bu fekkee yàlla dimbali nañu moom lañ bëgg a taxawal. mais pour expliquer rek ne li mom moy li nga xam mom moy mom moy projet bi kep ko xam japp nañ ne ah am nga projet immigration ñu fexé banela kat nañ la préparer ci li nga xam mom moy suñu kàttan ñun ak suñu xam-xam ba bala nga dem Italie xam say devoir xam sa droit dégg tout italien bo xam bo ñëwé Italie rek peut-être sa intégration mën na mën na gaaw te loolu tam mëna nek message bo xam dina mëna euh, pénétrer jeune yi bakat ñu xamné ndekete kat donc tukki ak ak voie bu légal amna na existe na te mën na nekk donc pour ñun tam loolu no euh, euh, lu bees la lo xamné donc japp nañ né mëna def impact bu positif ci euh, ci jeune yi donc lool tam bu ko yalla sotalé donc dañ ci remercier tam donc association Bambilor donc impact bi nga xamné donc ñun ñoo nek feulé mais lepp luñ soxla ci wàllu organisation bi donc ñom japp nañ ci. te tam dinañ continuer tam di def ay actions yoo xam ne ci biir euh, Bambilor ak tam li nga xam ne moom moo ko wër pour que ñu mën a sensibiliser jeunes yi wax leen informer leen donc ba ñu xam exactement képp koo xam ne bëgg nga tukki xam fi nga xam ne moom foofu foofu nga war a jaar donc projet bi dafa door nag mais 2025 euh, tam dinañ organiser yeneen cours de formation yoo xam ne tam ci loolu lay jublu. ba yàlla def donc li ñu bëgg nag exactement lu kii mooy am centre boo xam ne donc day am ay cours yoo xam ne day continuer donc ba bépp jeune boo xam ne bëgg na ko def mu mën fa jaar du rek dañ la jàngal langue bi mais dinañ def cours boo xam ne civique lay doon wax la lépp lu jëm ci wàllu këyit ci wàllu visa ci wàllu lépp loo xam ne day day soxal ki nga xam ne moom moo bëgg a dem euh, tukki nga xam ne daf ko war a xam parce que loolu mooy koy permettre tam mu mën a respecter lu waaye ba pare tam xam ay devoir am ba pare mucc ci ñi nga xam ne nag ay arnaque lañ yoo xam ne donc képp koo xam ne bëgg nga tukki rek donc dinañ la jege fexe ba nax la wala ñu jël ci yow xaalis boo xam ne peut-être amoo ko sax mais xëy na say mbokk dañoo jaay ay terrain wala ñu jaay ay kii pour kii la donc euh, lol moy ci tënk rek li nga xam mom moom ñu fi indi tay fi ci Sénégal merci beaucoup. président Cissé Ba jité impact e euh, sant nak partenaire yoyu né nak euh, jël nañu sax luy tolok lim bu takku ci ay doomi Bambilor ngir nak ñu jàng làkkum italien mom nak Cissé Ba mi ngi ñax autorité locale yi ñu gëna taxaw temm ngir jappalé impact e ci ay nisëram ndax nak lo xamanteni bi ñom ñoko ko def ñi nga xam ñoo di impact e def ko kon loolu ñëpp ñoo ko bokk ñoom ndax njëriñu Bambilor la ñu déglu président Cissé Ba mi nga xam ni mooy njiital MPEC. ñëwoon encore tey amoon euh, suñuy partenaires suñuy gan yu fi ñëwoon mooy suñu partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñu ngi dëkk Italie ñu nekk aussi suñu collaborateur aussi ñu représente leen fii au niveau de la commune de Bambilor euh, le mouvement MPEC représente leen fii ñoom nag ñu ñëwoon fii tey. di partager ak ñun di waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy projet bi mais ñëw nañ Sénégal y a deux semaines lañ leen jëlee woon aéroport boobaa léegi ñu ñëwoon fi nag àndoon ak ay professeur yoo xamante ne dañuy ñëwoon euh, di jàngal candidat yi nga xamante ne dañ leen jël muy vingt candidats yoo xamante ne dañ leen opté jël leen tànn leen ñu partage si ak ñun waa Mouvement Impact ñu jël vingt candidats yi yemal wuñ ko rek ci commune de Bambilor mais dañ jël ci yeneen aussi Dakar euh, yeneen région de Thiès ak yeneen région moom mu nekk vingt candidats euh, am na nag candidats yoo aussi xam ne aussi ñu ngi jógee Bambilor ci lañ bokk comme aussi seen 16 ñoom ñoo opté seen 16 Bambilor lañ koy def ñoom ñoo opté aussi liggéey ak waa mouvement Impact euh, donc Bambilor lépp lu ñuy def aussi dañ koy partager ak ñun donc ñu ñëwoon fi tey pour waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne moom moo leen fi indi woon biñ fi ñëwee depuis biñ fi ñëwee ba tey ñu ngi woon ci liggéey bu am solo parce que vingt candidats yi nga xamante ne ñoom la ñu jël euh, ñoom lañ doon jàngal làkk bi italien di leen jàngal aussi euh, euh, nan la ñuy nan la def pour que dégg làkk bi d'abord loolu mooy seen première option yàlla def nañu aussi ñi nga xamante ñoom lañ jël vingt candidats yi dañ bëgg dañuy am ak ñoom pour benn cours de vingt cinq jours su ñu defee cours de vingt cinq jours bu ñoom ñi nga xamante ne mooy professeurs yi fi ñëw dañuy delluwaat euh, euh, Italie suñu dellu aussi ñoom dañuy continuer cours yi par internet ak ñi nga xamante ne mooy les vingt candidats. ñu nekk aussi ay nit yu am solo Bambilor aussi yàlla suturaal nañu ñoom ñoo ñu dikk ay ambulance ba kayit yi nga xamante ne. war nañ ko toppatoo war nañ ko am yëpp def am nañ ko ñoom bu ñu delloo incha allah xam naa du yàggati ambulance yi bi nga xam te moom la ñu dig pour poste de santé bu Bambilor dinañ ci jot. ñu ngi leen di féliciter li nga xamante ne moom mooy suñu partenaire yi par de Cheikh bi nga xamante ne Cheikh Lo bi nga xamante ne aussi moom mooy suñu collaborateur moom moo nekk suñu intermédiaire moom moo nekk aussi suñu loxo ci partenaire bi. bu demee aussi ba ñu am ay partenaires italiens aussi yàlla ci moom la ko jaare mu amoon yéene bi wax ñu ko dégg ñu ko aussi boobu aussi mu xaar su tànk tubéyam ñu koy sant bu baax di sant aussi ñi nga xamante ne aussi mooy professeurs yi mu ñi mu àndal ñëpp ñu ñëw fi jël seen temps bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp ñëw di ñu di ko accompagne ci liggéey bi di ñu accompagne aussi si liggéey bi poste de santé seen doléance yi wax nañ ko li nga xam te mooy lycée bu Bambilor aussi école bi wax nañ leen suñuy doléance ñoom aussi ñu ngi ci ñu ngi si ñu ngi ciy waxtaan ak ñun d'ailleurs loola waraloon te ñu ñëw fi di waxtaan ak ñun ñu sottante xalaat ba nga xamante ne aussi dëkk bi dinañ xam ne kat ñii dañoo am volonté ci li ñuy def ñii aussi dañoo fas yéene jóg jàppale waxuma Bambilor parce que candidat yi rek jógul Bambilor ñu ngi liggéey wax naa ko ñu ngi liggéey jël nañ ay candidat si région yi fu bëri di wax ne aussi euh, autorités yi nga xamante ne aussi ñoom ñoo nekk au niveau commune de Bambilor ñu leen di ñaax à ce que projet bi ñu xam ne projet bi projet seeni i seen projet la ndax tey ñun bu ñu nekkee yore benn mouvement ànd ak suñuy partenaire bëgg nañ suñu partenaires yi tey lépp loo xamante ne bëgg nañ ko ñu jàppale leen ko si nu mu gën a yombe parce que nag lii nga xamante ne ñun dañ koy def ñoom ñoo ko waroon def donc bu ñu amee koo xamante ne benn mouvement bu jege maire bu jege autorité maire yi bu jege aussi autorités yi ñëw indi leen benn projet bi bëgg nañ aussi ñoom ñu gën ci xar seen tubéy génn ci taxaw ba nga xamante ne ñun lépp lu ñu soxla rek ci wàllu euh, ñun ak suñu partenaires yi ñu taxaw ci yombalal ñu ko parce que li ñuy def bu sottee ñoom la sottil bu zone su commune de Bambilor suñ fa amoon tey dix jeunes yu voyage wala vingt jeunes yu yi ñu ne ñu ngi leen di yóbbu si suñ partenaires yi au nom du mouvement ak au nom du partenaires yi nga xamante ne moom la ñu am loolu suñ fierté la loolu yokkute la si commune de Bambilor parce que zones yi bëri nañ fi am seen diplôme war a liggéey te liggéey zones yi bëri ñu ngi ñëw jaay seen terrain dem dugg si gaal gi zone yu bari liggéey nañ commerce xey dajale 4 millions xey dugg si bi ñewatuñ donc nak ñu lool moy liñuy xex di leen di leen Une enseignante italienne chargée de ses cours en langue italienne décline ici à notre micro leur feuille de route. Euh, je suis une enseignante de langue italienne en Italie et avec euh, ma collègue, je suis venue, venue ici au Sénégal pour euh, deux semaines pour euh, un cours euh, de langue italienne, un cours intensive à des candidats qui viendront venir en Italie dans, dans un futur. deux semaines de cours intensifs quatre ou six euh, heures chaque jour. C'est dur. Ils travaillent beaucoup. Ils sont très, très sérieux et très intéressés à tout ce qui passe en Italie, mais surtout à connaître la langue. Parce que la langue, c'est la condition pour euh, euh, une bonne intégration dans la société italienne. dans le cours, nous allons apprendre la langue italienne, surtout tout ce qu'il sert les premiers temps qu'on arrive en Italie, se présenter comme chercher le travail, comme euh, chercher une maison, comme euh, vivre en famille, comme, faire des, achats, etc. C'est un cours très, très pratique parce que ce qu'il euh, qu'il faut est vivre, vivre bien en Italie, vivre selon les règles, la loi italienne et surtout en sécurité. Et c'est ça le bout de notre cours merci à tous qui ont organisé ça. waaye projet bobu yalla ko yalla euh taxawal way ndax na xalé yi ñi ngi dé ci mbeex mi euh ñi nga xamni ne sax dañuy mucc ba yegg bu ñu yeggé kenn du leen tek fenn wax dëgg yalla mu nekk ciono yo xamni dal doyna war kon président Cissé Ba yak impact ak ñi nga xamni ñoy say partenaire ak ñi lay jappalé di autorité locale yi yalla na yalla sotal seeni niser